Basiru daam day léemu de day léemu nee na ñeenti ñeenti xibla yi doog a wax ak gaañi ndax ak Sénégal tarkaala mbër mu nekk nga fi daa war a dajeeg mbër yëpp ah, waaw waaw daama ngi noonu ma ñaan na ba pare tarkaala <laughs> Basiru neex na waaw daam ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. maa ngi sant tey ban mbégte nga am tey Ahlaamu Sénégal def seen fête gi nga xam ne bii mooy seen deuxième euh, saison ñu koy def ñu invité le si en tant que euh, mbër gàlle nga doon daanaan dëkk si dëkk bi euh, muy Petite Côte bi. Hmm. waaw sama xol bi mel wana wanagu mboot rek seddu guy di kontaan ci waa ahlu laam nga xam ñooy pono Sénégal fu laam dem ñoo ko fa yóbbu maanaam tey dañoo kontaan quoi moo tax ñu sàjj ñu nar a ñëw ambiance ñun ñi kontaan. bëri naa fay adversaire nag avant tout may waaxu nag di nuyuwaale ñoom Alfali président ñoom Moustapha Tine ahlu ku kuy bëggee làmb man moom maa fa nekkal mbër yi bëgguma benn mbër dem extérieur di la nuyu di nuyu si di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. Mhm. tey daam lan moo ko inspiré ba nga xam ne nii ñëpp di comédie di def leneen moom ñëw comédie rek daal di koy jëmale ci làmb lan la. lu ñëw ci man la rek ba tey mënu ma laax lan la lu ñëw ci man la rek may dox sama gars yi mooy loolu noonu jàpp maaro laa jógee ni ma ko wax ñi ñu toj fu ma ko wax ñi ñu reetaan di reetaan ba de ma ne mais lii dafa mel dafa xaw a neex de te ma ko ci YouTube yooyu noonu ma dóor ci benn dugal ci YouTube yooyu noonu Sénégal di xar gaay li daa neex ku ne ma woo naa ma li def noo ko mënee dafa neex ñëpp di ma bëggee ma ne comme def gaay di kontaan. kon daal si foo am polo ba tey ji li la si fekk fekk lañ. waaw li ma ci fekk fekk ma daam ñu gis nii rëg-rëg da laa recevoir gis Bombardier xaw na laa rey yooyu noonu te a waaw yooyu li ma leen si mën a wax yaatu na trop Bombardier dafa maa kepp ci koñi napp ma mooy loolu noonu Reug Reug ma dajeeg moom ci mbuur ci ruq yi avant tout man ma dañoo daje fi mu laa mu fàqal ma sama zone bi yëngu yaa am gën a xam mooy loolu. mu fàqal sa zone bi yëngu. waaw waaw mbërum poids si la moom ci ci kii ci MMA yi. waaw noonu xam nga rek ma mujj koo may mooy loolu noonu. foofu jot naa faa escanté trois tubaab sax mais xam nga rek damaa bañ lu ñaam mu mujj koo may. après mooy loolu yaa am gën a xam. mais tey jii Dame euh, ñu bëgg a xam tey jii tamit démb ndax dañoo jot benn information ñu ni Dame gars yi dañ kaa ko ci euh, mbedd mi xaw kaa bu ndoxataa loolu lan Dame lan lañ yan leeral lañ si mën a indil. <laughs> non yooyu gars yi mooy loolu gars dañ maa bëgg rek noonu gars ñu ma def ñu ma dara sant yàlla rek <laughs> waaw. Dame nangoo wax si loolu de yan gars ñoo la ko mbedd mbuur yi bëgg laa mbuur nañ bàyyi ni mel dama koy kaas. du ñu dem du ñu bàyyi kuñ dem duñu jàppale kuy dem daam suñu estaar la ñun làmb la ñuy dundu mu ñuy bëggal ci làmb ku ko laalati di nga ñu laal koñ ngeen ko nag am looleen leen ko def ku ko laalate dinañu laal laa la wax balaa ngeen egg si daam di ngeen jaar fii mais daam ñu gis koo xam ne chaque jour moom ngay pellool si kii di dialogue moom muy mbër nekk xale doon koo xam ne def na ah, lu lu néew néew def na boo xoolee benn defet la amagum te bëre na sept combat muy pàccaam numéro 2 Paxuma mu nekk sa doom day ngeen koy pellool yéen ñaar affaire bi nan day ñëwee noonu rek boo nee jaajëf waay moom mu tontu la noonu après affaire bi daw noonu waaw affaire bi maanaam rek maanaam dañoo déggoo rek ñu ñuy ànd nag di di nekk noonu lu yàgg man a moom nekk longtemps ba lu ñuy def man moom day neex xam nga avant ñëw dóor vidéo sax dama ko daan jaay waaye champion mun ma lépp jàmm taw féex fii laa jógee bàyyi ñu déggoo ko mu neex. mooy loolu noonu ñu ñu toog su ma ñëwee nii Sadio ñu préparé wu répété ko su ma ñëwee nag champion lépp jàmm xam nga du juum ci kàddu du ma juum ci kàddu yi affaire bi du toj waaye ñu koy ñaanal carrière mu gudd ba li mu bëgg ci làmbum naka am incha allah. ñaata drapeau nga am ga ba Basirou borom wasaare làmb nee na ñaata drapeau nga amagum instant bii nii. man à peu près euh, ma dara ah. hmm. yëpp dama ko mujjee ñàkk. da nga bu toll ni yow di daan ay grand mbañ ñoom Ibou Ndiol ñoom Orange 2 ay rëg amoo benn drapeau daam tey kon waa Ahlam Sénégal bu ñu lay décorer si lan lañ lay décorer tey maire yi ñuy décorer fii xanaa fa séenee woo ñëw roppi leen. waaw xam nga rek ñun moom ay xale lañ toloogu fu ñu amee bay pot meew lañ sam mais dañ koy sant yàlla waaw ah, mais dañ koy sant yàlla mooy loolu noonu. mais combat nommé yi nag amagum nga ci dara combat dóor yi. non combat dóor yi après bëggoon naa ci amee mais sama loxo bi daa rëqoon quoi ma annulé combat nooy waajalee saison bi ñu dëgg. Ah, saison bi niñ koy waajalee di entraînement rek di wax mbëri bàyyi ma fi kenn fi laa joof yoor fépp laay dugg fépp di raafal mbëri luñ teg maay jël. maa liggéey quoi. Basirou koy wasaare bëgg a daal. waaw waaw wasaare Sénégal daal affaire bi fii la. Mm. nee naa leen nag li ci paaku du ci mbar te guma di woomeen njaaca damaa bëgg gaay bu ba wasaare Sénégal dem abonné wu bës kolo si vidéo yi di leen dal nga xamante ne ñoom ñooy dallu mbuur dallu Sénégal fu du sooxal askan bi fu mu nekk rek ñoom dañ koy luqate di ko teg ma leen di ziar waaw wasaare. jaajëf <laughs>